jër ngeen jëf mbokk yi safoo ak bàyyi xel m TV ci talaata gi yemoo ko fukki fan ak ñeent ci weeru mai ci atum ñaari junne ki ñaar fukk ak ñeent di Sidath Thioune nekk animateur ci rajo Futur Media daal di nay jot ab sanction mu bàyyee ko ci Alhaji Assane Gueye nekk njiital rajo Futur Media bataaxal boobu nag Alhaji Assane Gueye daal di nay xamal Sidath Thioune ni suspendre nañu ay activité am ca boîte boobu di rajo Futur Media ci fàttali nag Sidath Thioune dafa critiqué woon ki nga xamante ne mooy Alhaji Assane Gueye nekk njiital rajo Futur Media gannaaw ab émission bu mu defoon di wax sa xalaat yëkkati woon ay kàddu teg ko ci kaw ki nga xamante ne mooy Bassirou jomaay Diakhar Faye ak ay ministre am moom Sidath Thioune nag dafa yëkkati woon ay kàddu jëmale ko ci ki nga xamante ne mooy euh, El seen Assane nekk njiital rajo Futur Média di ko xamal ni laata Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ay ministre am di ñëw amuloon sañ-sañu yëkkati fi ay kàddu mbokk yi safoo ak bàyyi xel M4 TV lii lañ leen indiloon ci xibaar yi